Hmm. te euh, combat boobu complexe mënu ko waxtaanee. luy loolu. maanaam waaw complexe mënu cee wax. maa la dégg kon ñëwal. man kon moo tax ma ma Fadam tout sa ñëw gi fii ma yaakamti ko parce que xam naa di ngeen wax loo xam ne xalaat naa Dimanche. moo nar am ca combat nga li tax nga wax loolu. waaw xam nga euh, Ada Fass dafa mbër dafa nekk benn combat boo xam ne nii ñoom ñaar ku ci nekk da am loo am. mooy mën ko ci bés bi. Hmm. am loo xam ne da nga koo ci bés ba. Ada lu mu am ak lu mu lu mu lu mu man ak lu mu tële ak. Ada Fass su ma ko jàppoon ci loxoom indi ko ci bés bi ne ko kaay bëre Tapha Mbeur dama naan ko na ko fa fekk. maanaam bu mu ko may jaam. bu ko may dara loolu koy may ndam ci hmm. bu bëggee daan Tapha Mbeur. waaw ak Tapha Mbeur relance ba mu am. waaw ak Ada na mu toll. Hmm. bu ko at bi ne prip. nga hmm. dagg lewaatoo ba ak jàmm ko dox ci kaw seere ko lewaatoo bu gàtt jëm koo gëtt bu Tapha Mbeur départ ci droitam boobu. mu jéem a juyaloo moom indi bëre ndax loolu koy may ndam ca bés ba. moom Ada Fass. waaw bis boo déggee ñu ne Ada Fass samp na ay tànkam taxaw xaar dafa mbër. Hmm. ñàkk na bés ba man maa ko man fa dem. kon loolu nga koy tere ci bés bi. dama tere loolu ci bés ba bu mu taxaw di xaar dafa mbër. waat bi ne prip na daggale waatoo bi ak garde bi ba tolloo mbër dox ci kanam ñëw. seere dafa mbër nii ci digg bi bu mu dem côté bu mu dem gauche. amul latéral quoi. non non non bu bëree bu bëree latéral day ñàkk combat bi ndax tey ji li tax moom mu mën a am accès ci ngembu Tapha Mbeur wala mën a am tànkam crochet droite boobu Tapha Mbeur di déclenché la moo tax te crochet boobu lay xool pour mën ko jiyaloo ak moom te ci digg bi la ko mën a am bi la ko mën a amee bu demee ci côté Tapha Mbeur day bëree wet bu songee Tapha Mbeur ci wet Tapha Mbeur mën na koo naax lalli ko taf ko te day àgg ci a suuf te mën naa jàpp ci ngemb te moom du jàpp te Tapha Mbeur dafa mën a ngemb daa mën a ngemb dafa mën a ngemb mm. waaw ndax day jongale dalay takk mën na laa takk wéng la mën na laa mën na laa sukkër bi kon tey ji booy bëri mbër moo xam ne moo la gën a suturloo ci wet doo ko may loolu na ko ñëw xaajale xaaj ko xaajale ko liwaatoog moom benn benn mhm. jéem koo jàpp ci ngemb mhm. jéem ma indi bëri wala mu song ko ci tànk déclenché bëri ba bu déclenché bëri ba moom bërim géej la kan Ada Fass mm. lu bëri ba gën a yëngu am na mille chance pour daan dafa am ah. waaw kon xanaa da nga ne moo dàq bëri non dàqutu bëri waaye ku ci ne nga am loo mëne léegi ñëwal nga ma ci Ada Fass bés ba loo ko cay digal ak loo ko cay tere. waaw li ma ko ciy tere mooy bu mu bàyyi Ada Fass mu firi ci bés lu tax waaw ndax bu Ada Fass rek baaxul ci moom. Hmm. ndax bëri na Ada Fass moo gën a rapidité bëri Tapha benn benn la du def lu mu mënu ci làmb li ma koy conseillé mu def ko mooy na fexe fekk jàppul ngemb. Hmm. bu mu xeex. ah maanaam bu mu liwatoo xeex. waaw waaw bu liwatoo xeex ñàkk làmb ji. Ah. dañ koy daan ba ñibbi te du ko yëg su ma koy doon tiba doon naa ko Tapha Mbeur ne ma ma ne ko lewaatul benn benn serré booy bi boo mébee mu ñëw nga juyaloog moom nga laal ko bu ñëwee nga jàpp ci ngem gi ba pare rocc sa droite jëm ko touché ci kaw boo ko touché ci kaw dina perte équilibre nga doo ko bëre mais boo ko bàyyee conscience tranquille am na mille chances pour daan la ndax dàqoo ko bëri ñaar yoon làmb gi toll na foofu ñoom ñaar toll na foofu làmb gi toll na foofu boo yëmbal xam nga ko xam nga euh, Mor Kang xam naa boo yëmbal xam naa Mor Kang te loolu bu ci Fallou Ndiaye yemoon tax jaruñu indi Ada Fass Tapha Mbeur te dama lay wax ñaari baat adversaire u ñaar ñi ñuy bëre grand combat la. nu man a nekkee. waaw lu tax ñaar ñële. Hmm. bu ñu xefee tuuti booy dinañ def ay espoir yoo xam ne nii. dañ bëri fa bëri bu rëy. dinañ leen fekk si ci kaw. te boo yooyu dama lay wax lenn li ñee di indi ci làmb la ñuy indi te amateur yi ni ñuy waxtaanee combat Tapha Mbeur Ada Fass. la ñuy waxtaanee Mor Kankang boo yem la ñuy waxtaanee bëri na ñu bëri ñëw stade moo la indi waaw Mor Kankang day moom boo yëbbal. mais Mor Kankang li muy tuus ci làmb di ko bëri si. kay di ko tuus ci làmb di ko bëri si ñee mënuñ leen de mënuñ leen ci bés ba. Ah. am loo xam dama seetlu ci bés ba. loo seetlu. mooy gars yi ñaari booy yi diggante Ada Fass dafa mbër. Hmm. dañoo dañoo biral gàllaaj ci bés ba. luy biral gàllaaj maanaam mooy tey jii soo xoolee seen open de presse yi. waaw ñoom ñaar ñëpp dañoo joxe normal mais gis naa ne tey jii ñoom ñaar gëm nañu indi nañu ñaan ci bés ba boo xoolee ay tegtal yi indi ci sax seen i open de presse préparé nañ ci bés bi ci côté gàllaaj bu man de gis naa fa weex ci ñaari camp yëpp ci open press loolu ñaanu bàttin la ndax boo ko gisee ci bés rek am na ñoom ñaar li ñu xëccoo kon lamb xëccoo la waaw lamb xëccoo la bés ba nag ku ëpp conseil ci bës ba gën a dal ëpp loo saraxe sarax ba nag lim la ci ñoom sa ñoom ñaar seeni seen i côté ab lim lim la rek ci benn côté comme tey jii ñu ne ku ci nekk xam nga stade wu arène nationale waaw lam bëgg ak arène stade Iba Mar du benn maanaam bu ci ne daa saraxam bu ne daa am saraxam te ku ci nekk na nga fexe nga boot ndakaaru ndax ndakaar bi diggu ndakaar lu ñuy bëri na boote ndakaar boo koy boot fa yow lan nga nan ngay def ba boot ndakaaru moor lan moo taxoon ëmma seen waaw ñëw fekk la dëgër de mu samp ci mu ne ko fii laay teg sama ci mikaay jemi bañ ñu ne mun a dee fii laay teg sama ci mikaay lu waroon loolu ah xanaa daa jàpp ne est-ce que duy yaa ko kon jeex na ci làmb. mais boot Ndakaar de man kay arène nationale boo fa taxawee fooy aw pour pour boot Ndakaar. waaw Ndakaar boot bu ñu la ko waxee. Euh, système la ci làmb. te làmb. xanaa Ndakaar boo koy boot kon da ngay wane gin comme ni ma. yaa man amul dara la ma ciy wax. man daal li ma mën a wax daal mooy làmb jooju moom am na côté boo xam ne mbër bu fa tegee ci mikaayam am na mille chance pour ñàkk combat bi. kon Tapha Mbeur ak Ada Fass ku ci boot Ndakaaru. waaw mën nga gagné làmb ji. ku ci gagné koom ndax tey jii boo xoolee seen dynamique dafa mel ni sax ñoom ñaar ñoo bokk benn facette bi ñu leen ñaanalee boo xoolee ñoom ñaar biral nañ ci ne tey jii suba ci làmb ja ku ci ëpp lu ci ëpp liñ ciy saraxe lu weex lay doon ñoom ñaar ku nekk biral na loolu ci bés ba ku ci nekk am nañ ay tegtal yu ñu la wax waaye lay ca biir côté combat ak ci biir làmb ji du benn. Hmm. Ada Fass man Tapha Mbeur tey su ma koy doon ci stade ba. Hmm. dama ko boo touché ba dama ko toog nga liir làmb ji. ba mu yëngu tootu beneen mu yëngu. Ada Fass su ma koy ci bés ba. Hmm. dama naan ko loo mën a jaxase bés ba na ko jaxase. na yëngu yëngal na yëngal waaw looloo koy may bés ci ndam la ndax Tapha Mbeur lu mu gën a yëngu rek Ada gën a am avantage dafa am lu mu gën a teey gën a am avantage ci bés ci Ada Fass dem gi dem gi dafa mbër dem rock énergie du am lu mu ko yokk non mën na ko yokk lu ne mbër da ngay nekk ci fu am champion mbër moo dégg ñu koy coow ci làmb rek teg na bëtam ci champion ba mu nekkal te Modou Lo dafa neex a nekkal làmb ah, fekki na Modou loo de waaw ndax tamit euh, dañ koy remercier ci lenn gis nañ ñu mayee espoiru parcelles yi confiance ci làmb moom Modou waaw tey ji bu ñu demee ba Guédiawaye maanaam 100 pour cent mm. Pikine mën a bokk boole ci seen biir nee nag mën a boole yàlla ak Modou Lo moo tax ndax dañu gis espoir yi nekk parcelles yëpp mu boole leen am tur bi sax jàpp ma ko mu gis naa mu boole leen te dañuy naqaree daane ji parcelle waaw ndax loolu ñu booloowee day dem ba dootuñ nëbbante ci seen biir dañuy dem ba dañuy nekk benn ndax anta entraînement moo moo nekk lu garaaw waaw groupe waaw bale boo ko takkee kenn mënu koo daan te lu wallaay dëgg la waaw pour nga damm ko nit dina jafe la nit mënu ko damm mm-hmm. waaye tey ji bu la yàlla dimbali nga téye ñaari bant bale pour nga damm ko yomb na c'est facile c'est facile kon tey ji booloo boobu ñu boole mënuloo bénéficié wu ñoom ñoo ciy bénéficié wu mm-hmm. mais di lay wax rek ci diggante Ada Fass Tapha Mbeur dafa nekk combat mm. maa ngi dégg rek amateur di ci waxtaanee nu ne mm. waaye su ma sañoon nga dal ci mm. xam ne ñoom ñaar ku ci nekk am nga loo mëne a bëreem rapidité na rapidité boo xam ne leen moo koy gën a aral ci bëre ba mooy Tapha Mbeur ñëw imposé ko bu ko Tapha Mbeur imposé rek Tapha Mbeur pour Ada Fass daan ko lu yomb lay doon mais Ada Fass bu ñëwee fekk Tapha Mbeur ñëw teg dal ci bés ba lewaatoo benn benn bu Ada Fass defee mu ne teg jëm koo touché ci ko jiyoo la moom jàpp ngemb bu jàppee ngemb ga ci loxo góos ba mu dëgër mu rocc ci droite bi yoon mm. bu ubbee bëre bëre ba day libre day libre day libre ndax Tapha Ada Fass ku day yàq làmbam arafas ah, ku dee yàq làmb am na solo moor jàngat bi li kiy wax nii ci làmb ji doy na war de Elas Matar maa ngi lay nuy depuis Espagne waaw Babacar waaw mën nañ ne Fadam résumé na lu am solo soo xoolee lim résumé rek day euh, wane ne dayoo bis bi nu mu toll ça ne Tapha Mbeur Ada actuellement mu ngi mel ne bu Modou Lo Balla Gaye ba muy taxaw 2010 noonu la mel actuellement nii groupe whatsapp boo dem foo dem. Ah, moom la jotaay boo dem moom ah, la ñuy waxtaanee coow li bëri na ba pare faalewul combat bu mag loolooy problème bi. Hmm. loolu nag ah, ñaari mbëri la ñaari mbëri tam ñoo liggéey si loolu lu mel. lu tax loolu man a am daal. waaw parce que soo xoolee Ada Fass li koy topp. yaakaar la si man de keroog ma demee Fass terrain Sanché. waaw Tafa mbër tamit li koy. topp yaakaar la si parcelle. ça ay mbër yu am ginnaaw lan. Hmm. ay mbër yoo xam ne soo demee seen gox dañ leen yaakaar. Hmm. mais Fadam tamit dafa résumé lu am solo. combat bi combat staff la waaw staff yi nag xalaat naa man day yàgg naa koy wax staff na ci joué la nekkul combat boo xam ne fugga kay gañe hmm. la ma fu muy toll ay entourage dafa war a baax ay borom bopp ñoo la war a wër hmm. xamal la bis bi fan la la war a mën a yóbbu si làmb hmm. ak lan la la war a mën a may li des si sa carrière parce que ñoom ñaar ku si daan am na beneen palier boo war a dem bien sûr ku daan war ne du bis boo xam ne kenn si ñoom war na koo caaxaane waaw Fadam tamit wax na lu am solo làmb tamit man dama gis ne combat Tapha Mbeur Ada Fass làmb njëkkante la. Mhm. waaw mun na bëre bi mun na gaaw trop ba jaaxal ñëpp. Mhm. waaw mun na gaaw. combat bi ma xaar mu gaaw. mën man loolu laa gën a yaakaar sax. parce mhm. que gëw ma ne mbëri dinañ xaarante. waaw parce que suñ xaarantee rek. làmb itam mën na diib. waaw man dama jàpp ne làmb ju gaaw lañu war a bëre. waaw résumé na tamit si Mor Kankang. ak Boy Boy Yëmbal ñooñu retard la mais ay adversaire u Tapha Mbeur Ada te tamit li leen liy topp ñoom Ada Fass Tapha Mbeur moo leen di topp waaw yaakaar bi am si Ada Fass ñoom it seen gox noonu la leen leen yaakaar loolu te ñoom ñaar ku si daan tamit sa xel mhm. day dem si con grand combat bi mhm. waaw ku daan sa xel da si waaw da da ngay bëgg a samp ndënd foofu mhm. mooy wane tamit bis bu am solo la te encore une fois di félicité Ndiaye production di wax làmb lii la soxla dëgg la il temps ñuy boole crème làmb yi jeunesse bi pour làmb mën a dundaat quoi soo xoolee dimanche mën na ne làmb day dundaat ba saison ubbee rarement nag lu neexay am daal boobu ba léegi lamb yu neexay am xanaa dimanche itam daj day ñëw moo gën caa dolle ko waaw loolu la waaw di wax tamit nag gars yi a ñëw la mhm. waaw lu baax la nga am solo macha allah mhm. léegi xam naa ne ñu ngi jëm ci jeexintalu émission bi may nuyu ki nga xam ne nii moom moo di Elas Matara ah, mu ngi ba Espagne Ibou Thiam yow tam maa ngi lay béggee waaw di bëgg ni nuyu tamit Ousmane Diouf Ousmane Diouf maa ngi lay béggee bu baax a baax nee na analyse su fadam bi macha allah nee na da am na solo trop moom euh, mu ngi defe naa ne waa Fisel Mbaadaan la mu nuyu waa Fissel Mbadaan yëpp kooku sorante wuñu ay dëkk ndax boo ne ay Fissel Mbadaan ne Mbaafey da ngay ñëw ak yaay faram loo xam ne nii moom ngay wax euh, su su diaspora bi parce que tamit làmb ji seen affiche point com lay daw mm-hmm. yaa ngi dégg kon gars yi nañu dem jëndi ko jëndi jëndi code yi pour mën a seetaan làmb ji côté pay bu nga xam tamit ñëw na bokkaat ci làmb tey di nekk lu yokk làmb ji noo ko gisee pay per si làmb ban gis-gis nga si am. waa xam nga sànq Mor dafa am fu mu waxee ci làmb. Mhm. mooy ci côté boobu noonu nga xam ni moom la euh, waa Diaspora bi dundoo. Mhm. te Babacar ni Diaspora bi di werante ci làmb. Mhm. fekkuñu sax fii. wallaay dañ koy dund de. waaw ñoom dañuy dund làmb. Mm-hmm. moo tax tey jii wartuñ leen jox affiche boo xam ne nii dañ ciy nattable. waaw chaque bi war nañ leen a tegal affiche boo xam ne nii. bu am solo lay doon dundaat làmb bu a fàttali ko dara ci Sénégal. Mm-hmm. ndax Sénégal bu leen fàttali ne làmb. Mm-hmm. te tamit folklooru làmb. cosaan. Mm. nañ ko delloosi ci làmb. waaw ndax tey jii dem nañ ba tey jii mag ñi daan bàkku ci làmb. def leen ni seega gisatuñ ko ci làmb. loolu lépp dañ ko war a delloosi ci làmb. te ñuy may mbëri ñuy tuus. tuus te diggante waaw ñu leen may ñuy tuus nañ leen di may ñu tuus te tamit amateur yi seetlu mhm. yi nga xam ne dañ ciy gën a pare pour mhm. yi bu baax a baax parce que dañuy bu ñuy dugg si ci làmb nañu arrêté combat yi ba pare yi toog jeex ba pare doogo dawal yeneen combat tamit amateur bi mhm. fii dagg biyam bëggu tamit dara rëcc ko ci làmb ji ku nekk ak la ngay dund ci làmb am na ñoo xam ne tey ji Mor mu départ ki tuus moo ko fa indi am na ñoo xam ne tey jii dynamique gu gàllaaj ga moo ko fi indi waaw am na ñoo xam ne tey jii arbitre sifflé ci diggante Tapha Mbeur Ada moo leen mhm. fi indi waaw boo xoolee euh, lamb dëkkante da cee bokk mhm. boo xoolee bay guy gi semaine bii passé waaw bu waaw balaa ñaari fan combat combat ak koo taxaw loolu mooy lamb mbëri waaw waaw ci kër yi waaw waaw lamb yàggul lay wax nga dëgg lamb yàggul carrière ba gàtt na loo boo amee doole tey bu koy ndamoo waaw balaa deux mois xale dina am loo lay wax a siiw rek a fi nekk la waaw ndeysaan am na solo looy tàggatoo maa ngi kontaan ci yow trop trop trop trop di la ñaanal jàmm di wax na vraiment wax nga fi loo xam ne tamit defe naa ne ñaari mbër yi mm-hmm. ak seen staff yi mm-hmm. ba ci combat bi ci des ah euh, defe naa ne lu ama am solo la waaye parrain bi tamit parrain u bés boobu dina la ci laaj tuuti nga tàggu ko muy zoo technique defe naa xam nga ko waa zoo technique sama nit la ñoo bokk fenn fu ñu dëkk mhm. waaw yàqul mais dafa dolli zoo waaw waaw nit ko am jom la kenn mënu ko yem ndeysaan ndax ndaw boo fekkee ne dangaa nekku nekk ci dynamique gu làmb mhm. Euh, nga dem nekkaat ci beneen facette boo xam ne bokkut ak làmb dara mhm. nga fexe ba ngeen ña la fa jiitoon ñu ràññee la fa mhm. nit ko am jom la dëgg la waaw mais nag li ma koy wax rek mooy lépp lu mën a jàppale Fallou Ndiaye ci bés bi mhm. na ko def na ñëw jënd billet yi yokk ci lam jëndoon jëkkati enveloppe yu am doole dimbale Fallou Ndiaye xam ne bésam bi génne na ci lu bare bare bare bare bare dëgg la pour taaral ko waaw loolu daal la amoon li may wax ci zootechnique amul te dara loo xam ne nii xamal naa ko tamit loo xam ne nii. Mhm. lu yàq lamb la. Mhm. wala loo xam ne day xeelu lamb. dëgg la waaw am na solo mu mel ni kon loolu mooy sa sa sa sa sa sa kàddu gu mujj. may kontaan ci yow. Fadam mhm. ah Omar Wade alias Fadam tout. Eh. ne gars yi sax dafa naa ne ancien mbër nga woon de wala. waaw ancien gloire la rek. da ngaa comme moom parce que comme waaw nga lamb xam la. <laughs> xam nga lamb gris waaw ak noo ci duggee. waaw waaw lamb moom euh, yaakaar naa jamono yi mboppatu démb ba léegi euh, yàgg naa topp lamb. Hmm. waaye lamb am na ñoo xam ne nekk na ci mais xam nañu duñ dem mais bëgg moo leen ci bàyyi. bëgg leen ca bàyyi man a xam sama bopp. daal di rocceeku te xam sa bopp ci jaamu yàlla la bokk macha allah am na solo <laughs> Mor looy tàggatoo yow tamit ah. waaw Babacar li ñuy tàggoo mooy di remercier waat bu baax waa Equivox TV waaw di rafet lu baax sa liggéey di la si ñaanal jàmm waaw beneen bi tamit di nuyu waat bu baax waa Ndiaye production mhm. staff bi fa nekk yëpp ñu ngi leen di mhm. remercier waa di mhm. wax dimanche nañ ñëpp teel a ñëw teel a jàpp si organisation bi waa di nuyu waat groupe baax di ko teg si loxo président Massamba Dieye waa di nuyu le président des amateurs de lutte président Goro Ndoye Goro Ndoye ñu koy nuyu bu baax a baax le futur maire waaw le maire de Pikine waaw kooku moom seen amateur yeeg yëpp ñu ngi si ginnaaw ak amateur lamb yi mhm. waaw di nuyu waa géew lamb yi diaspora mhm. di nuyu waa Ares muy responsable écurie yi ñoom soo xoolee tey journée bi tey lépp si journée dimanche bi leen ko waxtaanee mhm. ça veut dire ne bis bi tamit yitteel na leen quoi yitteel na leen ñu ngi ñëpp ci ticket yi waa ticket yi Babacar dañ ko yombalal soo xoolee supporter dañ ko def 2000 amateurs yi ñu def ko mille mhm. loge officielle bi ñu def ko mille mhm. yaakaar naa ni jaay production tooñul kenn. te incha allah bëgg nañ bis bi ku nekk sentir sa bopp moo tax ñu yombal bee noonu. Mhm. waa di woo ñëpp képp koo xam ne waaw. am nga kóolóore ak njaay ak ñëpp nañ ñëw jàpp si bis dugal seen loxo. ngeen jënd ko di wax tamit affaire yi dawul si benn. télévision senaffice point comme lay daw. 3 euros 99 waaw waaw noonu la demee. voilà dee Sénégal 1000 francs lay nekk. voilà di wax na gars yi jënd code yi mhm. ndax làmb moo toll foofu soo xoolee ne bis yu toll nii mhm. am coow lii mhm. sponsor jamono ji dafa xaw a rafle si làmb waaw système bii rek la gars yi mën a teg pour tamit mën a suqaliwaat làmb ji bu baax a baax ndax nekkul journée boo xam ne tamit ah, journée bu yomb la ko macha allah waaw di remercier ñëpp daal baaba jaajëf Mor kontaan ci yow ah noonu la demee woon kon tey yéen ñi doon suivre tamit vraiment amuñu seen fay yéen ñi nekk di seetaan di commenter di bind yàlla leen yàlla fay di wax ne làmb ji comme ni ngeen ko déggee dawul si télé senafis point comme ñoo koy dawal direct ku bëgg boo nekkee diaspora bi 3 euros 99 bu dee Sénégal 1000 francs ngay fay nga dugg foofu seen affiche seen affiche nag suñ ko tuddee suñu xel day dem ci bës ñu koy ziar bu baax a baax suñu DG boobu Ibrahima Faye maa ngi koy béggee di di nuyu tamit su ma seex Lamine Seck di nuyu group Buzz Pro yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp Lutte TV BP Actu ñoom ñëpp maa ngi leen di parce que tamit bon ñu bokk te ñooy laxasoo goj te vraiment diggante bi rafet na lool te comme lu may wax rek entre lamin ak Babacar moom foofu moom comme li ñuy wax rek ñun ñaar du ñu ñaar benn lañ daal yàlla nañu yàlla sàmmal suñu diggante ku may suivre tamit ngay dégg suma kàddu dee ma ñaanal sama diggante ak Lamine Seck bu Lutte TV yàlla na ko yàlla sàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa maa ngi koy sàkku bépp doomu bu may seetaan parce que la ñu seq bari na lool lool lool sama rakk la suma lépp la waaw di wax ka ne nag tey dafa am koo xam ne moom ma woo ba ma ñëw mu jox ma yére ma sol muy mbay ndiir mbay ndiir nag di ma couturier bu mag nekk fa nga xam ne moom mooy ca Médina jàkkaarloo ak Miami côté kër ñoom Aline Kassé Ndiréen Couture ah di xaritu Assane Ndiaye kere ñëw na fii toog fi ndeysaan moo ma woo ma ñëw mu solal ma tey yére gis nga li ma sol nii ni mu yànje moor mbay ndiir a ko def numéro Ndiréen Couture benn la ñaari numéro sax laa leen di jox 77 ngay def 650 86 22 77 650 86 22 bi ci des mooy numéro Tigo bi 76 ngay def 135 10 13 76 135 10 13 kon di bëggee ñëpp di ñaan ñëpp jàmm di nuyu tamit kër gi nga xam ne fi la ñu nekk muy Equivox ci liggéey bi macha allah mucc na ayib trop trop trop trop ah image dina leer son bi dina set macha allah kon Equivox yàlla na fi yàlla na ko yaa yàlla yokk. comme ni mu yokkee kër yëpp di ñaanal ñëpp ñu yokku waaye tamit Balde mention spéciale ah daal bi sëñ Bamba bi euh, liggéey bi metti na waaye mu ngi koy gérer yàlla na sa jàmm yàgg di ñaanal hélas tamit mu wér ak jàmm Habib tamit mention spéciale l'infatigable Habib Seck maa ngi koy nuyu di nuyu borom kër gi sekk du ma fàtte tamit ki nga xam ne moom mooy Aline Badara Diouf DC Vox Arena di wax tamit ne ku ne xam ne ne journée Vox Arena Mama Lamine Garga 2 nan ko waajal loolu Fadam tuddi nañ ci waxtaan beneen waxtaan lay doon loolu euh, defe naa ne le 19 euh, la kii des la la la date ba euh, date ba ñaataate sa Mama Lamine Garga 2 le 11 décembre voilà maa ngi jégalu le onze décembre incha allahu rabbi waaye tamit bu leen fàtte ne bu ñu jógee fii ci Tafambër Ada fas ki nga xam ne moom mooy Baba Jaw day ñëw lu combat bu doyati waar Queens double moteur jamaïcain mu ngi ñëw ci Pape Ndoy ak ki nga xam ne nii mooy Abu Ñaase ah le 21 muy bés yoo xam ne ñu ngi ñëw ak li ci jéey mu ngi ñëw tamit ak Naaru Sogas ak ki nga xam ne moom mooy xale euh, géejawaay ba muy ki nga xam ne mooy Jackson géejawaay nag temps yi moom naa noppi duma ci wax waaye nag xam naa temps yi moom loolu ci mën a muy nuy waa géejawaay yëpp <laughs> di ñaanal ñëpp jàmm di jox gars yi di daje beneen yoon incha allah bi ci beneen édition spéciale arena